salaamaaleykum. woy Samba. ci loo nekk. waay waay waay waay. naka mu. gën a gaaw nii. nga xanaa ngay tukki wala kese ya. non non pourtant sama rakk bi moo ñëw bind. bu benn ne kese lañ am xam nga mënul fanaan fii. caabi aljanna ji maa ko yor. kii lay dugal aljanna maa ko yor. 5000 francs mënu laa dugal aljanna. waaye benn mu yóbbu aljanna kii nag saa yu jullee gee ba pare mu yóbbu ma ba Firdawsi indiwaat ma. kii ci kër gi fii moom xanaa nitam nasaraan la. ah nijaay boo demee locataire la kii kii ñàkk na kersa. ah waaw loolu dara daa xañ na laa mii nekkul rek. non. bàyyi tubaab nga ñëw wax fii. wax ji mënu ma ko fee xaar xaaral ma def sa ma jël la. yow toog rek nga fi nekkee. lekk naan dem ci douche bi si c'était en France dañ lay tëj yow. waa tubaab <laughs> eh eh borom diw gi. di saa car géej gi car géej raw raw. waa kontaan gi moom lu ko war weeru koor dee fee. wuy yooyu. tey weer boo xamante ni weeru nga nga naan la li ci gën a neex nag mooy bu dog di jot ba jot allahuma laka sumtu wa bika amantu isfir li ma qaddamtu weeru koor lañ nekk waaye dootul dakk de saa yu kër gi wéete ba ñëpp ne las ba koor gi jàppale ku nekk dugg sa nekk tëdd ma ne la ratam joogu taj jàppale ñu làng oh, oh, oh ah, leen gi nga a baax hmm. yow weer bu dee nga fay bu ñu fay loo ñuy téye ci kër gi je vais porter plainte à la police waaw waaw demal fu la ku nekk vingt-cinq ngeen doon fay teg naa ci juróomi téeméer yow yow yow yow nag teg naa ci junne rek moo yàggoog nag wasalaam